amaan mbégte jàkkaarloowaat ak yéen ñi safoo sans limite TV di leen di wax déwénati leen j'espère que passé ngeen feetu korité bu neex lool ñu leen di baalu ak te di leen baal ak di leen wax nag ba tey rek yéen a ngi ci suñu ay émission ñu moom à chaque dañuy dem xooli ji actualité yi ñu ko maîtriser ñu dem toog waxtaan ak ñoom xool ñoom ñi nga xam ne seen xam màcc na ci ànd yan jàngat rek lañu ñu ci am moo tax tey waa sans limite daal di déplacé wu ñu wowal yi seet si nag suñu doyen le grand journaliste Mansour Mboup ñu ngi leen nuyu di la dalal Euh, Soxna si maa ngi lay fay bu baax a baax a baax. di nuyu aussi euh, waa Sans Limites yëpp. Mm-hmm. di lu seen taxawaay ci euh, sphère médiatique bi. Mm-hmm. parce que yéen a góor góorgóorlu. Mm-hmm. di gëstu di dem. di fekk nit ñi aussi di jëli information bi c'est important. mën ngeen toog rek ubbi seen locaux di di woo nit ñi mais c'est important ngeen dem di mm-hmm. seeti nemmeeku nit ñi aussi di mm-hmm. aller l'information waaw ñu leen di jaajëfal aussi leen encouragé bu baax a baax a baax ñu lay baalu ak di la wax déwénati waaw fekkee déwén kii déwén xam nga Sénégal moom mm-hmm. euh, tout le temps ñu ngi ci ñaan boobu baalu ak dañuy war a baalante ak chaque jour même bu dul bésu it dëgg ndax réew mu réew mu tooñ la mu bëri tooñ la dëgg la réew mu bëri jaay doole la réew mu bëri oppression la Euh, chaque jour ñu tooñ nit. xañ ko ax ak yelleefam. dëgg la waaw kon ñun ñu ngi baalu suñu biir. Mm-hmm. waaye am na ko war a baalu réew mi. Mm-hmm. am na ñu war a baalu réew mi. parce que dafa yomb trop. Mm-hmm. dans pays ñu ne Sénégal vitrine démocratie la. Euh, plus de six cent détenus yu nekk ci biir kaso bi. xëy rek dugal nit kaso atte ko. te ñooñu souvent dañ leen tuddee juge ak magistrat ay nangam. Mhm. mais juge bu mag bi mooy yàlla. c'est trop facile. nga mhm. xëy rek un Pape Ndiaye un coro wala un Bassirou Diomaye wala un nangam ñu dugal leen ci kaso bi noonu. Mhm. plus de 600 détenus Cheikh Omar Diagne anamu Karim Gueye anamu. Hmm? ba pare nga tëdd sa kër lekk say ginaar. Hmm, ndogo ba mu neex la xëy korité ay jullit ni yow nekk ci biir kaso bi. war nañ war nañu sóor euh, taraayu bàmmeel mhm. te atte ak seen aqulaay taala ndax c'est trop fort charge bu rëy la nag bu rëy mhm. que justice bi war na am ay réforme parce que mhm. parquet dafa am ay doole doole ju bëri li ñu jox doole bi ñu jox parquet dafa doy waar parce que parquet ku mu neex tëj tëj ku mu bëgg jàpp-jàpp puisque tamit ñi muy jàpp ak ñi muy tëj dañu dañu dañu def dara defe naa ne ku deful dara kenn amul droit kenn du la fekk fii nga toog jël yóbbu xam xam xam nga nag Sénégal lan mooy def dara def dara mooy lan nguuru Senghor jaar na fi. Hmm? Mhm. di ngeen histoire Senghor ak Mamadou Dia. Mhm. fi mujjee. Mhm. nguuru Abdou Diouf jaar na fi. gis ngeen Ablaye Wade. Abdou Diouf noonu dafa Ablaye Wade. dëgg la Ablaye Wade fi. moo ci tane. kii ñëw na fi Macky mais li ñu gis fii mosuñ ko gis c'est du jamais vu au Sénégal depuis 1960 à nos jours. waaw da ngay gis ni ba Sénégalais yi ñeme kaso. Hmm? bu ñu demee ba kaso léegi nekk nekk benn benn badge wala benn benn benn benn euh, décoration bu ñu takkal nit. fierté lay doon fierté lay doon ci nit ñi hmm. mu dem ba tey ji Sénégal euh, tu te la la question est-ce que yoon am na fi est-ce que justice am na fi. Hmm. c'est trop facile dans un pays bu ñu demee ba tey euh, ñu gis ñi ñu wóolu ñi ñu yaakaar. ñu waroon a dalal askan wi. waroon indi jàmm waroon indi stabilité. ñoom seen bopp ñu ñu gis ñuy def yu doy waar yoo xamante ne tey jii boo ko dénoncé ñu ne jëlee na rap ci kaso bi. Mm-hmm. mën nañu nekk ci benn dëkk boo xam ne kenn du wax. Mm-hmm. ça loolu loolu du démocratie. Mm-hmm. loolu loolu dictature la. te fii Sénégal jëm nag nekk na fu fu xaw a doy waar. waaw parce que ñu ngi ci pente boo xamante ne. je pense que descente aux enfers laa ko tuddee. mais est-ce que euh, xaw a doy waar foofu taxul sunu njiitu réew Macky Sall gis nañ ko keroog bésu julli 17h. Mhm. Euh, il était en direct avec euh, suñu suñu suñu papa Sène Gueye gis nañu cas kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko fa mu ngi woote dialogue. Mhm. bëgg togg ko position bi ngir ñu làng waxtaan ñi nga xamante ne sax ñoom am séré woon nañ leen pour du ñu bokk ci élection yi ñëwaat na ci loolu. Mhm. le cas de Karim mën na bokk ba ci Khalifa Sall mën na bokk est-ce que nekkul njiitu moo tax ma woote dialogue. waaw déjà ci euh, ci ci ci dem bi mu dem RFM. ak mhm. El euh, Hadj Assane. bu mhm. RFM di suñu doyen. Mhm. Hmm? Euh, je pense que ne lu tax demul ci yeneen médias yi parce que foofu man j'ai vu que ne interview bu ñu la bu ñu la tegal tapis rouge la. Hmm? poser les questions yi la neex. Mhm. parce que ñun presse bi amuñu euh, souvent mhm. euh, droit di xas nit mhm. ku bokk ci corporation bi mais dafa ñaaw tey jii nga ciblé yenn presse yu ñu lay jiñ say presse lañu fa ngay toog hmm? journalistes yi ñu lay jiñ say journalistes lañu ñoo lay posé question question yi yi sénégalais yi xaar ñu posé la ko dañ koy raay raayal hmm? foofu bon suñu doyen la Assane mais j'aurais aimé buy posé question président de la république mu pose posé ko les questions de l'heure buy poser question président de la république fii fii Sénégal toll. Mhm. jamono ji toll. Mhm. Hmm? mais warul warul dama gis ne bon dafa dañ ko lalal tapis rouge mu wax la ko neex def discours am. waaw mhm. ah, loolu laa gis foofu. et euh, am na sénégalais yu wax pourquoi pas ci yeneen télé yi. waaw ah. Walf Sen TV 2STV et pourquoi RFM sénégalais yi toj aussi ñu ngi ñu ngi ñu ngi posé question boobu. comme li nga xam nga sénégalais yi question boobu ñu posé man moom laay moom ah, lay posé wu. Mhm. je me dis que président de président de tous les sénégalais jusqu' à l'heure où parle président de la république mooy sama président. ma bëgg mu bañ ko. Mhm. ak tous les sénégalais. Mhm. Hmm, c' est chef de la nation. tey jii li ko war mooy tëddee njaaxaanaay buy interview na woo Walfadjri woo Sen TV woo Nangam. woo RFM ñëpp toog. ñi ko war a poser question poser ko question parce que c' est le moment de parler. jamono ji président de la démarche boobu comme li nga xam Euh, démarche moom ci lañ dëkk ku sañoon tey jii ni ngay amee opposition bi noonu ngay amee njiitu réew. dëgg la mm. sa njiitu réew ñëw ñu ne ah Walfadjri mi ngi dalal kan mi ngi dalal président de la république war a waxtaanee le question de l'heure mm-hmm. fekk fi réew mi toll. Mm-hmm. loolu bu amoon loolu dafay siggil euh, présidence dafay siggil nguur gi. Mm-hmm. dafay siggil réew mi. ñu wan président de la république amul par parloo. dëgg la rajo yeeg télé yëpp la yemale. donc fii a des télé yu ñuy ak yu waaw. ne dañ leen di jëñ pro de. waaw mais xam nga. télé opposition bi. moo tax euh, Sénégal. nañu jàngat bu baax a baax Walfadjri a été toujours comme ça. Mhm. c' est un contre-pouvoir. Mhm. c' est pas une télé qui est contre le pouvoir mais un contre-pouvoir. Mhm. Walf dafa nekk mës a nekk ci kanam wetu askan wi wetu askan wi. Euh, liñ naan tey jii. Euh, le train qui arrive pas de l' ku nekk ak sa ligne éditoriale. ñun nekkuñ fi naan Macky yaa rey gaynde geeg yow la nangam nii yow nangam nii nangam déedéet. ñu ngi def mi ngi mi ngi def lu baax. lu baax boobu ñëpp teg nañ seen bët. kenn waxu ne Macky liggéeyul. am na lu mu fi def. il faut pas être nihiliste. man ma toog mu ko ne Macky liggéeyul. am na lu mu fi def. mais liggéey boobu yàq na ko. nu ko yàq. yàq na ko injustice bi ne ci réew mi. mais injustice bi yéen président la. waaw mais xam nga kàddoom la de président Macky Sall moo waxoon. ne am na dossier yoo xamante ne maa jël sama coon ju teg ko ci mm-hmm. loolu mooy lan la mainmise mm-hmm. du pouvoir pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire mm-hmm. conc dossier mu teg gis ngeen bataay fii ku fi saaga ay nit bokk ci APR wax lu ko neex def lu ko neex du mujj fenn mais nga bokk opposition wala nga doon activiste wala nga say say say say xalaat ànd la nguur gi mais aussitôt dañ lay dañ lay mandat de dépôt dañ lay jàpp tandis que gis nañ fi Ahmed Suzanne Camara li mu wax affaire Fulbert Sambou beeg Didier mhm, Badji bi mhm, mhm. mu ne dañ leen a rey ba wax ñi leen rey Fadilou Keita def un post daa hmm? wax j'espère que vous ne l'avez ñu dugal ko ci kaso boobu ba léegi mais avec ça ñu bëggoon a justice am na fi wala justice bi euh, justice équitable la c'est pas vrai justice bi ñu am justice bu xaw a jàng la bu xaw a doy waar la boo bëkk ci nguur gi yow daal euh, risque am ci y a pas de risque. Mm-hmm. mais boo bokkee ci opposition wala ngay jox sa avis contraire ak ñoom li ñu gëm. Mm-hmm. mais xamal ne chaque jour mën naa xëy ñu yóbbu la kaso. Mm-hmm. Ah, ba tey dañuy desandi ci discours président comme que bu ne ñëpp rek war nañu bokk ci yooyu la jongante. aussi euh, mu ngi wax ne opposition bi ñu ñëw ci dialogue bi moo gën sinon ñu ngi dégg mu ne ñi nga xam ne bëgguñu ñëw ci dialogue bi wala bëgguñu ci jàmm gi seen dem. élection war nañ ko xoolaat est-ce que loolu discours président la. non du discours président vraiment discours bu euh, bu ma gàcceel la ci président de la république parce que président de la république muy wax dafa am auteur dafa mais un président buy wax ak sénégalais yi naan ko gedd saa yi aye. Mhm. daf ci waroon teg bu yokkee may lu loolu la loolu yi di wax di ko gedd saa yi aye. Mhm. mais un président qui s'exprime mhm. c'est toute la nation que que lay engagé. buy wax tey jii di appel euh, ci dialogue. opposition yi Hmm, mais war na ko def ci gën gi demin mm-hmm. mais euh, bu ñu ñëwee nanga bu ku ci ñëwul nag <laughs> comme ni ko xale wax ko gedd nangam mm-hmm. mais loolu day wone euh, ci sama analise mm-hmm. mooy position de guerre bi mu nekk parce que communication la ñu def communication booy déglu nit hmm, lu muy wax da ngay xam ne kii euh, pare na pour xeex waaw ah, président dafa pare pour xeex ci li mu wax ah, parce que woote bi mënoon na gën a rafet Mhm. mënoon na gën a wax lan moo tax dialogue euh, war a am. Mhm. mu teg ko ci yoon mais appel bii mu def aussi. ah mais man bu ma bokkoon opposition bi dama wuyu te lan la ñuy dialogué. Sénégal jamono ji lan lu ñuy dialogué. jàmm ci réew mi la bëgg. Hmm? position beeg pouvoir bi nekk ci jàmm ndax population mën na nekk ci jàmm aussi. ok lan mooy indi jàmm ay bi lan moo ko indi. yenn dossiers yi. yaa ko wax. dañu nekk ci dëkk boo xamante ne tey buñ naan noo nañu dialogue nañu jar kat moo indi ay ci réew mi kat moo jàpp ñu nji di tëj ah détournement milliards yi fu ñu koy dégg ñiy def lu ne weng ci réew mi ba pare xëy di doxi seen soxla fan lañ koy gis kon bu fekkee ne tey jàmb lañuy wax mm-hmm. mais jàmb dafa nekk ci loxo kenn. Mhm. donte yàllaay joxe jàmb mais jàmb dafa nekk ci loxoy président de la république. Mhm. président Macky Sall moo yor jàmbi Sénégal. Mhm. mi ngi ci loxoom. kon bu bëggee jàmb rek. bu bëggee jàmb jàmb am jarul dialogue. parce que réew mi fu mu toll nii les nerfs sont trop tendus. kilifa diine bu ñu demee ba kilifa diine yi mënatuñ ci dara. bu ñu demee ba société civile bi tey jii na sax. mënatuñ dara ci jàmbi Sénégal yi. opposition bi radicalisé pouvoir radicalisé ñu gis ñu jënd ay armes di ñaawlaat ci ay drone yu am sànni lacrymogène mhm. di xa di mais mais et puis ce qui se passe dans ce pays là am dama koy faral di wax. Mhm. Sénégal ngay gis manifestation ñuy rey ay nit. Sénégal ngay gis tey ji ñuy jàpp nit ñi ba nit ñi finalement bon nekkatul benn nekkatul am problème injustice bi am ci réew dafa jéggi dayoo trop. te il est temps aussi président de la République te booy wax sax euh, da naan xaaral ma xool li may wax seggaat wax. waaw mais à tout moment paree. mais mais loolu la. Mhm. xam nga foofu lañ jëm ak nit ñi dañ dem ba tey ji booy wax da nga naan nit ñi boo paree da naan la waa yow ci wax. Mhm. xoolal li ngay wax. Mhm. Ah, non mais loolu aussi foog nit ñi bàyyi xel ne booy wax waxal te yàlla tax. oui parce que métier bi ñu def ñu nekk nii dafa nekk métier bu sensible surtout jamono ji. waaw boo waxee ñu dëkkal la fenn. boo waxee ñu ne noo waa ji pro Sonko la wala waa ji nangam dama dañu jàpp ne injustice am na. Mhm. ñu teg ko Ousmane Sonko. Mhm. Hmm? mais nga jub te non injustice boobu. Ousmane Sonko dañ ko teg injustice. mais bu rëy bu rëy dans ce pays là l'homme le plus insulté du Sénégal l'opposant le plus insulté mais du kan la Ousmane Sonko la mës nga gis opposant bu ñu teg lii Sénégal injustice bu toll nii jiñ ko viol jiñ la de jiñ ko viol. Mhm. fu ne ñu ñu ñu ñu ñu ñu créer ay vidéo ay montage yàq deram mm-hmm. lu ne ñu yàq ko ko mm-hmm. ba finalement ay eh, audio génne setal ko xale bu jigéen bi wax ñëpp di dégg diggante moom ak Mamour Diallo diggante leen ak leneen mu leer nañ mm-hmm. ñu xam ne dossier boobu ci ñu ñu jàll ci beneen dossier mooy l'affaire Prodac l'affaire Prodac rapport am na maa may jaamoo ko wax Birame Seck livre la ci bind pour lan demal ñu ci moom ñaata dossier ñoo pendant devant justice ay nit ñu nangu seen kër ay nit yu ñu violé ay nit yu ñu tooñ ay nit yu subir injustice kenn kenn deful appel ci ñoom juste àtteegu leen ba léegi mais quand c'est Ousmane ko li mu wax mais vite fait taf taf ñu jël affaire bi monté ko bëgg yóbbu ci yoon bëgg koo atte am na lu tax. atte ko bëgg ko attewaat la wét. bëgg ko attewaat c'est parce que bon ñëpp xam nañ ne li ñu bëgg mooy. xam nga c'est wax ji jarul làq làq. te parfois retour parquet am na ñu doon dem ba ay 3 mois ñu leen di woowaat 4 mois 6 mois. mais dañu gis ne distance bi. Ah, moo waral renvoi bi passé. Mhm. parce que ñëpp xamoon nañ dañ koy renvoyer parce que jaarul yoon. minimum renvoi de jours ou mhm, mhm. <laughs> mais ci 14 jours ñu bëgg ñu bëgg defaat appel. loolu dafa am lu muy lu muy wëndu lu muy wëndu mooy ils veulent éliminer Ousmane Sonko pour du bokk ci élection c'est le chef de l'opposition. te tamit le oui bi bu demee wuy ji du ñu yokkaat ci daan yeneen yoo xam ne dina mën dina ko mën a. ma dem élection. képp ku yor dossier boobu te sérieux te bëgg jàmb Sénégal. Mm-hmm. Hmm, da nga xool looy def Sénégal duñ ko liggéey ba heure bi bëgg koo taal te bu ñu waxee ñu jël taal bi non ñee ñoo bëgg taal réew mi ñoo bëgg taal réew mi ñi ñoo bëgg taal réew mi ñi bëgg taal réew mi mooy ñi jug bëgg jaay doole Sénégal. Mm-hmm. bëgg jël un opposant ne par force du bokk ci élection yi bëgg jël des dossiers judiciaires politiser ko ñen ñoo bëgg taal réew mi encore une fois et puis réew mi dafa bu am ay fumiste yoo xamante ni ak i naa feq doo mën a comprendre mhm. da gis dëgg gu ne we nga doo ko wax mhm. ndax ragal su ma waxee lii nangam non nangam lii nangam ak ñuy suñu presse bi ñenn ñu jaay seen gor mhm. dem ñu jox leen ñu ne patt ne mut di di di wax comme comme nu mu leen neexee te xamuñu ni day jeex. Mhm. day président ci ay waxam nee na Sénégal amul détenu politique. waaw loolu de xam naa moom ginaar yee neex rek waaw ni mu ko rétee neex rek moo tax. Mhm. mais Sénégal waxuma ko boo jëlee chaîne internationale yëpp tey jii Sénégal la ñuy joobee fu ne ci emprisonnement yi y a trop d' emprisonnement au Sénégal la liberté est menacée au Sénégal. Mhm. la justice. équitable est menacée au Sénégal. Mhm. tey jii Sénégal l'opposition ci boppam dañ ko dañ ko dañ ko euh, maanaam euh, tentative de liquidation de l'opposition mhm. surtout du parti PASTEF il y a plus de six cent détenus ci biir kaso bi boo xoolee quatre cent yi bopp yëpp PASTEF la ñu bokk. Mhm. réew mi Sénégal bu ñu ba kenn ku wax ñu ne la crime dugal la ci kaso bi. ba nit ñi dañuy hésité léegi maintenant di wax. kon ça veut dire que y a problème bu ñu ne laa nag réew mi amul ay détenus politiques Fadilou Keita lan moom moo yoroon ka lan nemmeeku tuubu mhm. bu Pastef mhm. hmm? El Malick mi ñu takkal bracelet waaw moo moo yoroon communication Bassirou moo Bassirou Diomaye Faye numéro 2 de Pastef Diop Taïf hmm? hmm? et tant d'autres mhm. ak ay leaders yu mel ni Cheikh Omar Diagne nekk ñi ñu dëggu ñu bëgg Sénégal ñu jël leen dugal ci kaso bi kenn waxul Abdou Karim kenn waxul nit dof nit saaga waru na du ñu ànd ak saaga de mais xol bu jeex la waaye xol buy jeex mu saaga mais doo ne xool vidéo bi ne saaga diw la saaga dof ndey nag saa yi hmm, matul nit nga pare taxaw yor jaasim saaga ndey sénégalais yëpp ñu gis ko bu photo ak doomu président de la république fii amul ku amul ci lay da ngay neex bu wax dafa réew bi dafa am ñoom bàjjan ak ñu amul bàjjan c'est grave fi ñu toll Sénégal boo koy wax souvent sa xol day jeex mm-hmm. da xool doo xamante sa réew ban réew nga nekk. Mm-hmm. nga gis ay nit yu médiocre yu tekkiwul dara yoo xamante ne tey jii waruñoon xool waruñoon sax toog ci kanamu télé. Mm-hmm. ñoo ñu ngi gis tey jii ñu ay nervi ay raykatu nit. Mm-hmm. xoolal vidéo bi passé ci affaire ngor bi. mais lu musu mais lii et danga naan mais. ana procureur ana justice ana yoon nga gis ay nit. armée mhm. bokkuñu police bokkuñu gendarmerie yor ay ay fusil fusil ay ay ay ay ay pistolet mhm. ay fusil d'assaut mais di tirer ci kaw ay manifestant nekk ay nervi ñu xam ne ñii fii lañ bokk ana procureur dafa auto saisir bi nit dof saaga mhm. waaye bi nit dof nday saaga anam ana dof nday mi ngi doxi soxlaam gis nañ ko mu photo njiitu réew gis nañu jël ñeneen yoo xamante ne tey jii mais pour lan lan moo ko fi jar ci réew moo xam dañ leen bàkkee jàmm bàkkee leen social bàkkee leen réew mu réew réew mu am dal hmm? réew moo xamante ne tey ji Sénégal léegi mais nekk na dëkk boo xamante ne tey dañu bëgg séparer valeur ak politique. effectivement parce que bu njëkkoon homme politique yi dañ doon woote conférence de presse di wax ci politique wala di wax ci tolluwaayu réew mi ci cadre nan lañ ko mën a defaree mais da ngay gis léegi ku ci woote point de presse rek ma ngay xas moroomam ku dee sa yaay juraat ay moo yoo xamante ne ñun xaaruñu ko. woon ci ñoom ku dee sa yaay juraat ku ko wax. kan ma wax loolu. ci làmb la woon fa la fa la fa la moom boobu kàddu boobu jógee dañ ko xam nga nit ñi. Mhm. gis nga réew mi dañoo bëri bëgg na dañoo bëri naa feq. Mhm. Ousmane Sonko tegal vidéo bi dafa ne. dafa ne. Mhm. wax ji Ousmane Sonko wax leer na nañ. wax leer na nañ c'est l'homme moo tax communication bi yëpp ñu teg ko ci ndoddam bëgg koo dugal. bëgg koo sosal. bëgg yàq deram bëgg koo tilimal Ousmane Sonko nee na dégg na xale yi naan ku dee sa yaay juraat. mais foofu duñ fa yegg. dee moo fa dul am. gaa dagg ne. dagg ne Ousmane Sonko fi naan ku dee sa yaay juraat. est-ce que tontu boobu ministre yi ñëwoon di ko tontu jaroon na loolu. ministre ban. ministre nga xam ministre de la jeunesse dégg woote na ko fan de presse ne carrément euh, nee na ku dee sa yaay juraat moom bu deewee bul yàq interview bi aussi quoi da nga wax ministre quoi am na ñooñu dañ leen tuddee ministre mais duñu ay ministre waaye vraiment. ministre bi ministre non non non attention ministre buy sàkkatoo ay ay ci Facebook bi di saaga ministre boo xam ne bu ñu ko falee saaga moo tax ñu fal ko. ah mais gis nga la république ci boppam moo nekk à terre bu ñu demee ba tey ji bu ñu tabb ministre du ñu xool ñi ñu honorable ñi nit ñoo xamante ne ay valeur la ñu am ñu tabb leen mm-hmm. ministre c'est n'importe qui portefeuille bu am solo surtout ñu dénk la jeunesse wala ñu dénk la leneen mm-hmm. dafa ay valeur yu mu war a àndal mm-hmm. mais du fekk ne Sénégal tey dañuy gis ku dàq saaga ñu def ko député mën nga saaga mën nga wax la neex am nga fit ñu def la député mën ngaa saaga Sonko maanaam c'est la culture de la médiocrité ministérielle au Sénégal tabb gi ñu tabb doomu aadama yi nekkul par par par pur euh, professionnalisme mm-hmm. hmm? wala nit ki am na niveau wala par compétence mm-hmm. mais tous les postes maintenant sont devenus politiques mm-hmm. te la politique maintenant dafa salté c'est la politique de l'injure de l'insulte de la diffamation hmm? yooyu moo yooyu yooyu moo xew Sénégal léegi ñu tabb la ministre wala PCA wala nangam ngay dox di xoggali ko lan la ma lan la ñu ëppale ñun. ëppale ñu réew mi nañ xool ñu am valeur. ñu teg leen ci poste te gis nga fii Sénégal toog na. Euh, sànq nee la président de la république. moo yor jàmbi réew mi. si ma ko yoroon président de la république. imagine toi mu def discours devant tous les sénégalais. mais man maa waxoon sama kàddu mooy sama lépp troisième candidature bi teg naa ko ci suuf. organiser élection ko mën nangam mais sénégalais sëriñ see njëkk a jóg ne waaye Macky bu ko kenn laal waaye kii bu ko kenn laal gor la dina am sax xam nga Sénégal dafa bëgg sot da am sax ko sotle waaye muy def nii lii ñuy def nii ñoom jàpp di yaakaar na fi nekk loolu signe la ci nguur gi waaj a parce que bu demee ba personne ci réew bi kenn sañatu la wax kilifa diine yi doon yaakaar ne tekk tekkaaral je que c'est trop tard sax ñoom ñu wax parce que dafa am fu ñu doon séntu ci kilifa diine yi. bien que dégg naa ñu wax ci suuf. waaye leen war jamono ji mooy wax ci kaw ñëpp dina dégg mais kilifa diine yi sax waxatuñu kenn waxul ñu jàpp di tëj di noot askan bi di duma ñenn ñi di di mais n'importe quoi ñëpp na tekk xam nga li ci gën a métti mooy. dangay dem ba tu te dis que est-ce que ñiy jar jar nañu xeexal. ana ñi jàpp fi ana Cheikh Omar Diagne. ana Abdou Karim Gueye. ana maire Ami Dia. ana ñooñu. Sénégalais yi continué di lekk ceebu jën ba am bëgg a jëg suur. ñu mhm. mhm, teg teg ci ataaya. Mhm. day doxi soon soxla. géej gi tàkkul. géej gi euh, yënguwul. wala tàkkul. y a rien man ne si rien n'est passé. les gens continuent à vaguer di fàtte sax parfois. voilà mais nag loolu nag finalement nag tu te yow xeex bi ban façon xeex la. ñi ngay xeex est-ce que jar nañu ko. ñu ñëw ci euh, kawu notre consœur di suñu doyen moom aussi. Euh, Thioro Mandela de la Walfadjri yi nga xamante ne actuellement mu ngi ci loxo yoon jigéen ñi naka ñu ngi koy méttitlu mm-hmm. ndaxte ko xam ne dafa tollu diggante ñu jël la daal di lay ñu ngi wax ne sax moom Ami Dia boole benn chambre. Thioro mm-hmm. euh, euh, sama concert la. Mm-hmm. nekk ci kër gi jàmbaare loolu. nekk aussi ku dëggu vraiment. Euh, kuy joxe ay position ci réew mi tey position yi muy joxe arrangé wul nguur gi. waaw tey jii gis nga man mi doxee ko su ma jaay jotoon woon ak jaakaaru café Touba bii. Mm-hmm. bootul bu ci policier bi <laughs> saa waay defeere ma. Mm-hmm. mi dafa am ñoo xamante ne tey jii euh, dañ lekk ay cible d'abord. coono ñëpp xamoon nañu li muy wax hmm, gaa yaa ngi koy bàyyi xel. Mm-hmm. parce que li muy wax arrangé wul état chaque jour ñu ngi dëkkal ci ay noppam moytul moytul gaa yaa ngi sa kaw gaa ngi sa kaw. ba moom il elle le mais Euh, damay dégg souvent ñu naan arrestation affaire topp kaa affaire nangam. Mhm. topp kaa nag man ma nekk nit koo xamante ne lu ma xamul xaw ma ko lu ma maîtriser wu du ci wax. Mhm. parce que man dama dégg ñu naan topp kaa rek. Mhm. topp kaa nangam mais li ma wóor te wóor mooy topp kaa bi ak lu mu mën demee Coro est victime de ses positions et de ses analyses. Coro dafa nekk koo xamante ne tey jii euh, chronique yi muy def. tout le temps di dénoncer. Mm-hmm. injustice bi nekk Sénégal. Mm-hmm. tout le temps coro ngi wax ci intérêt sénégalais yi. Mm-hmm. tout temps coro ngi génne dossier yoo xamante tey jii gaa yi koy nëpp nëppal di ko wax looloo ko yóbbu kaso. mais du bu ñu bu ñu. déggoo li la wax ma la wax man bi di wax yow su bi wala kii jaay ndaamaaraas fii. Hmm? <laughs> bootu fee laay waa mais parce xam nga Walf. nii la mësoon nii la mës a mel dem si yàlla Sidy Lamine Niass hmm? euh, taxawaay bi mu amoon ci askan wi luñ ko doon wax c'est un opposant lu ko ko mhm. ay temps ñëw nañ fi ba bëgg a tëj Walf hmm? mhm. gis nga fi jamono Sidy Lamine metti woon na trop mhm. hmm? ñu jàppoon ne bu Sidy Lamine demee ligne éditoriale Walf dafay wàcc gars nañ négocier nañu nàngam nañu nàngam dafa am ñoo xamante ne dañu dund ak Sidy Lamine Niass j'en fais partie fekkee naa jamono toog naa ak moom mbirum ba tàyyi mhm. waaw boo musaan toog ak moom mbirum bay génn da ngay jàpp gaynde nga loo génn ci mbedd bi war nga ko mën a fàdd ndax dalay xamal ne li ngay wër nekkul ci kenn mu ngi ci yow mhm. dalay xamal ne fii boo fi nekkee dañ ci am yàlla mhm. waaye niñ ci amee yàlla mooy buy jaay buy jaay sa ngor ñun presse bi war ñu jaay suñu ngor ndax lii fi ñu toog ci télé bi mm-hmm. y a des gens yoo xamante ne ñu gën a intelligent foofu mm-hmm. gën ñu xam actualité mm-hmm. gën ñu mature gën ñu mûr mais toog seen kër dañu déglu il faut pas prendre les comme des demeurés kon fii bu ñu fa toogee dañu am mission moo tax Walfadjri eh, dégg naa benn waay xam a comme ancien commissaire la xam nga bëgguma sax tudd turam ah, Walfadjri Sonko moo leen di fay muy fen wu rëy waaw réew mi moom réewum fen la fii li leer ba leer mooy euh, fii gisuma fi ko toog ak Ousmane Sonko ah man de mosuma toog ak moom mosuma déggante moom téléphone mosul am mosul am te mën na mën naa wax ne Moustapha Diop mii sama directeur euh, bi mu toogee Ousmane Sonko interview la woon mooy bi ñu mujjee def. Mm-hmm. à part ça amuñu relation. nuntu bi ñu bi ñu tëjee Walf mu ñëw fii aussi masawuñu mhm. waaw kon nag Walf nekkul fi diw ak diw mhm. askan mi dafa nekkan seulement nag dafa metti trop jamono ji nga gis mhm. injustice tel bu nekk Walf man ni Walfadjri gis nga gis nga la sénégalais yi déglu moom la sénégalais yi seetaan quand il s'agit d'information Walf gis nga sondage yi mujj xam nañ ne Walf est en tête lan moo waral loolu c'est parce que dëgg gi Walf jël di ko défendre la parce que neexoon na trop jamono ji saa yi xam nañ fi mu yombee. Mhm. ci wit wit yi ngay dawal ci nangami ngay dawal. Mhm. waaye lu ko fi jar on est pour le peuple et on pour le peuple askan nag tey jii boo xeex ak moom booy xeexal sa askan loolu mën na la cee fekk. Mhm. parce que da ngay wax dëgg dëgg boo xamante ne euh, yàlla yàlla yàlla yàlla rek moo tax. mais mënoon ne ci média hmm, mais di jaay sa ngor di joxe de fausses information ah di wax pour plaire. on par pas là pour plaire au pouvoir ni à l'opposition mhm. on est pour wax dëgg mënoo gis injustice réew toog di ko sëgg di ko seetaan mënoo gis lii xew Sénégal ñuy jaay doole nit ñi mhm. sénégalais yi sonn dund gi cher xoolal na panier de la ménagère mhm. sa yaram day daw jamono ji ba pare ñu indi Auchan teg indi Chinamal teg da ngay dem marché léegi buntu marché bu nekk teg nañ fa Auchan teg nañ fa ci wala wala wala Chinamal suñu yaay dañuy xëy soo ba ngoon dañu jaay te yaay yooyu ñoo daan duggi marché di jaay jën wala di jaay nangam mais indi ko ci kër gi mooy dugg ci woyofal bi mhm. mooy dugg ci nangam bi mooy dugg ci njaboot gi mooy dugg ci fourniture yi mhm. léegi les gens bëgg affaire tubaab tax nañu dem ñoom ñëpp songi Auchan yi mhm. bàyyi suñu ndey yi nga xamante ne ñoom noonu ñoom ñoo nekk marché poisson yoo xëy quatre heures du matin di dang-dange ñoo nekk caaro yi nekk marché Castor nekk marché Casba nekk yeneen marché yi nekk cuunuuma yi au de quoi nous sommes en de piller l'économie sénégalaise. xam naa ne waxtu bi dañoo léegi état wu état de santé wu Coro yéen waa Walf foo leen ci toog. d'abord yan ngeen ci euh, xam nga yaa deux journalistes fii ñaari journalistes ñu téye. Mhm. kenn ki mooy Pape Ndiaye. Mhm. Pape Ndiaye dañ ko téye ci yaama neex parce que position yi mu joxe moo arrangé wu état. Mhm. Pape dafa dénoncé wax te Pape. ku xam-xam dafa dafa am fit engagé ci li muy wax te du mm-hmm. waxantu mm-hmm. sur le plan juridique il est le meilleur au Sénégal mm-hmm. mais côté boobu tey man maas boobu taxaw naa wax loo xamante ne du noonu te waxuma na Pape lu mu wax du noonu de man wax naa du noonu mais état wala kii na gën a démenti ah ne non li li wax na dëgg ah li nga wax rectifié ah, dëgg mu taxaw ci télé bi ñaata ko ko fi dégg ah man de nangam bi bon amoon na article ma waxoon mais je m'excuse parce que def naa ci erreur nangam nangam mais la vie continue mm-hmm. mais en 2015 Macky Sall moo toogoon ITV ñëpp ko déglu. Mm-hmm. mu ne sama régime mën nañ cee seetu lépp sauf tëj journaliste Pape Alé Niang dañ leen ko fi. Mm-hmm. king nag dañ ko king nappe sax. Pape Ndiaye. noonu mi ngi ci kaso bi ba ci Coro. ba pare dafay am lu may un appel bu may lancé ci kaawu Coro. ana association féminine yi moom daal bu dee aji saal ñu génn. bu dee aji saar ñu génn aji saar nangam dañ koy nii nangam nii nangam nee na dañ ko violé nangam nangam parce que lekku lekkukaay la woon mais an féministe yooyu tey ñu jàpp une journaliste enceinte de sept mois ana journaliste yi ana ana ana ana féministe yi le cas de mère Amidia mais Coro dafa feebar jigéen ba elle est ba pare ëmb juróom-ñaari weer juróom-ñaari weer gis nga Sénégal war nañu xolaat mbir mi trop. parce que sa yaram day daw nga toog jigéen bu ëmb juróom-ñaari weer ñu dugal ko ci kaso bi mais sans sa am sans sans sans remords te jigéen la jur. nit mën na sax def délit mais ñu xool nu ñuy def ak moom. mais pour doom ji te wax kaaw coore rek mais y a yoo xam ne ñu ngi enceinte ñu tëj leen ci kaso bi. te est-ce que tey jii mbirum topp kaa googu. j'ai entendu ko y a 34 plaintes xaw ma. au plus yu si jublu. xaw ma les tenants et les aboutissants. Mm-hmm. dégg naa am na ñu ci jàpp ñu bëri. Mm-hmm. mais foofu damay ñaan clémence parce que aussi jigéen ñëpp xam nañ ne seen genre jigéen ñi moom foo leen mm-hmm. fekk ñu ngi ñu ngi ñu ngi polémique ñu ngi lijjanti ñu ngi topp kaa ñu ngi nànkam yàq der moom baaxul ci kenn ku mu a doon nag ku mën a def topp ci viwu jàmbur di wax ji moom beneen affaire la parce que loolu aussi euh, dafa nekk benn tendance da ngay xëy wax ci nit loo xamante ne askor kopp yow nga wax ci moom lu doy waar. Mhm. jabaram fay njabootam tas. Mhm. métier mi yàqu addunaam tukki. Mhm. loolu aussi liñ war a xoolaat la. mais pour le cas de Thioro li ñu ko doon wax naan euh, profil boobu nekk ci biir moom la xaw ma c'est pas elle du moom beneen bi mooy aussi euh, ñu ngi ñaan justice. ñu libéré Thioro. ñu libéré Thioro libéré surtout aussi Thioro. parce que jigéen la bu mm. ëmb am juróom-ñaari weer nga tëj ko ci kaso bi. Mm-hmm. ñuy xaar association féminine gisoo kenn ju wax. gis nañ ni waxuñu ci loolu wala sax dañ doon blâmer Thioro ku ci mel ni Gabriel kan que ni moom moo bokk ci groupe kaay wante gis nañ bi nga xamante ne Sitor Ndour euh, jànkam daal dina koy jiiñ viol ñoom ñoo njëkk a jug taxaw. <laughs> ndax Gabriel Kane def na benn poste. Mm-hmm. di ñaaw lu loolu. di wax ne yoon na def liggéeyam. Mhm. ba si toon sax am na plainte boo xam ne jébal na ko yoon ngir Gabriel Kane. waaw xam nga xam nga le cas de Sitor Ndour hmm, moom sax euh, tëj nañ ko. Mhm. mën na ne tane na parce que tëj nañ ko ci kaso bi. Mhm. mais le cas de Sitor Ndour dafa am te maa ngi dégg mu naan su amoon doole ji Ousmane am. Hmm, du kenn du ma tëj. Sonko waaw. Sonko Ousmane Sonko man doole la am ci réew mi Ousmane Sonko mi ñuy toj otoom génn ko par force ñaar yoon lañ toj otoom. mi nekk résidence surveillée Ousmane Sonko bi biñ naan dañ ko pomp pomp pomp mhm. di xaar résultat yi mhm. amul jàmm fenn mhm. kooku ban doole la am à part askan yu ànd ak moom mais Ousmane Sonko justice yoon waxu ne dafa violé dañ ko jiiñ viol la wax te mbir yi leer na Sitor nag jànqam moo te moo wax yaa ji témoigné mu am audio bu ko dugal est-ce nga te je me dis jii juge bi nee nañu nangam <laughs> génne nañ ko ci kaso bi kenn ñeneen kenn kaso. Mm-hmm. mais bu doon keneen du demee noonu bu doon keneen du demee noonu et puis gis nga ñoom féministes yeeg yooyu noonu euh, bu fekkee dañuy def combat pour jigéen ñi lu baax la parce que jigéen ñi foog ñu protéger leen. Mm-hmm. ci réew. Mm-hmm. waxuñu ko tooñ nag. jigéen ñi foog ñu protéger leen waaye nañ ci boole jigéen ñëpp maire Abidja bu ñëwee Sénégal. bu ñu wanee États-Unis seen force spéciale ñu wane force spéciale ñi jàpp. Mm-hmm. Hmm? nga gis leen ñu ne Chine ñu wane force spéciale ñi jàpp ñu ne Sénégal am seen force spéciale ñu ne maire Amidia <laughs> gàcce la ci réew. Mm-hmm. force spéciale Sénégal mooy maire Amidia nañ ko libéré. Mm-hmm. yàgg na jëkko si ko trop. libérer tous les détenus apaisement tension sociale li koy li apaiser tension politique au Sénégal mooy ñu libérer tout toutes les détenus. tous les détenus politiques. leen libéré président mais génn une une sortie honorable Sénégal mën a am jàmb mhm. ñi war a dem élection muy Ousmane Sonko muy Karim Wade muy Khalifa Sall muy euh, euh, keneen ak keneen. Mhm. mais ñëpp dem élection ku mën sa borom duma. mais Idrissa Seck nee na leen moom mooy chef de l' bi de. kan Idriss. bàkkat ak màkk moom xam mais. mais tourné na le dos à Macky Sall. parce ah, que quitté na aussi benn. <laughs> xam nga tourné na le dos à Macky Sall. président Macky Sall ba pare ñi ma wax ci troisième candidature Macky Sall lu ma ci lu mu ci wax lan la Idi Idi wax ci troisième candidature waxu ci lu leer je comprends na ba pare Idi il est dépassé Idi mort politiquement mi ngi naan bu leen ma rey nangam ak nangam nangam maay chef de l'opposition hmm. chef opposition ban bu Gambie déet Idi chef opposition lan la bu Sénégal bu bu Gambie wala bu Sierra Leone ban hmm. opposition lay wax Sénégal Sénégal benn oppo benn chef de opposition moo fi am muy Ousmane Sonko. Idi fu mu toj Idi sénégalais yi dañ ko bàyyi ci bu mu woree opposition bi loolu loolu loolu tole bu doy waar la woon Idi a rejoint Macky mu taxaw naan waxuma woon ni dama ne woon ni affaire màkkat ak bàkk yooyu mais Idi vraiment li ko war mooy. Hmm? assumer sa retraite politique dem toog noppalu parce que Sénégal dafa am beneen ère bu bees buy génn dina métti trop. Hmm. mais révolution la boo neen révolution nag ñu naan non saa waaye non non révolution du xeex. Hmm. une révolution sur le plan politique day am. sur le plan économique dafay am. sur le plan culturel. mais sur le plan aussi idéologie dafay am. moo xew Mali. moo xew Burkina moo xew Niger. mooy ñëw Sénégal nii ndaw ñi nekkatuñu ay ndaw yoo xamante ne dañu topp taaxuraan geeg rim rimbi rimbi gi non non gis nga ndaw ñi léegi. dañuy toog di suivre les émissions. comme émissions yi am solo yi. di documenté wu di xool actualité politique di ko topp. Mm-hmm. mais ndaw ñooñu tey jii. un idi buy def conférence de presse. Mhm. mais conférence bi conférence religieuse la gën a lourd génne aaya nangam li nangam nangam. Mhm. ba pare comment idi naka la mën a jàkkaarloo ko Ablaye Wade di ko xas. waaw ah, parce que. idi euh, fi mu jaar Ablaye Wade ay kàddu li mu wax noonu mag la moo tax dañ naan yëngal na aras. Mhm. war na wax ci ci ci mag ci ci président Ablaye Wade ak fi ko mu jaar Ablaye Wade. idi bu demee bay xas Ablaye Wade tey jii mhm. doy na waar mhm. idi bu bay tàkkale opposition bi doy na waar mais idi bu demee bay def xiin yi mi ne ci Macky Sall parce que man gisuma mu wax loo xamante ne lu garaaw la nee ministre bi nañu génn ci gouvernement nangam ak nangam ak nangam Sénégal dil bu ne am na fi dil bu ne am na fi da nga gëm ni loolu dil la tàggoowuñ yow maa lay wax benn affaire je dis fii ak kanam di nga dégg dil bu garaaw xam nga tey amnistie mais réewum Sénégal kan mooy kan kan lañ mën a wax Actuellement, hmm? kan man kan nga mën a wax ne diw candidat la président Macky Sall candidat la. amaguñu lu leer. Hmm? dégg naa Xaadim Samba rek naan ko waxal loo bëgg na wax président Macky Sall nekkagul daal ñi mu àndal ñoo naan mu ngi kenkenaak mi ngi nangam mi ngi waxi caaxaan yooyu mais président Macky Sall waxagul ne candidat la kon moom moom déjà te moom moo waxoon du bokk. modification de l'article 27 de la constitution nul ne peut faire plus de deux mais loolu mooy wane ne moom du bokk juridiquement moralement bokkul xaw ma nag mu jaay doole Ousmane Sonko ah, def na déclaration candidat ne candidat la mais ba léegi ñu ngi koy jàbbaa jonge ci yoon bi bu des bu jógee ci dossier bii kee plainte bu jógee kee plainte keneen plant bu biir bii rëccee ñu génn bu Adji Sarr teg bu Adji Sarr kiiwee ñu jël ñu jël Prodac teg c'est l'homme à bokk Sénégal ñu ngi toog di xaar. Hmm? ak kan Karim dina bokk Karim Wade wax ne dina bokk parce que amnistie guñ ko. projet bi yóbbu na ko assemblée mais guñ ko. Khalifa Sall amnistie guñ ko. Karim pour ñu amnistie ko nag foog waxtaan am. foog waxtaan am président Macky Sall ci politique beneen affaire la beneen affaire la waaw te dama gis lu ma jaaxal lu ma yéem force vive de la nation yooyu dajaloo. Mhm. pour xeex une troisième candidature waaye man dama cee gisul PDS. Mhm. ah mais affaire bi jaaxal mhm. comment tey jii parti bu man ne par PDS ñuy xeex troisième candidature ba ba ba société civile opposition bi yëpp daje gisu fa PDS PDS ku ko jiite Abdoulaye Wade Karim moo ko jiite Karim Wade moo ko jiite gisuñ ko fa. gis ñu fa Pape Djibril Fall mu jaaxal man ja bi ma ko gisee foofu jaaxal na ma mais jarul jàngat xool ubbi say bët rek na Sénégal ubbi seen bët xool. Mhm. ku xool xam li xew. parce que yaakamte nañ nga wax ba ñu ne non déggal li mu wax maas moom waxati na nangam nangam mais dëgg mu yombul wax dans ce pays là. Mhm. mais ñu ngi gaa yaa ngi dile ñu ngi dil bu baax. Mhm. parce que aussi tànk day tàlleeku mbaa mu mbaa mu banku mhm. mais mënoo nekk ci ci ngin càngañ bi nekkoo fii féetewoo fële mhm. mais dans ce pays ngay dégg ko naan mais man je suis neutre neutre c'est de mooy naa feq buñ demee ba imaam di xutba mhm. xutba ba su iit ñëpp di ko déglu ngay dugal opposant yi safara mais imaam boobu méritéwul sax toog ci minbar moo tax dégg naa booy naan nañ ko waxee de sax euh, nervi nervi imaam <laughs> mais si baatu baatu niir bi fu ne fu ne la am. ni mm-hmm. mu amee ci yeneen mais ci la am parce que imam bu taxaw war a wax yàlla waxaloo ko mm-hmm. yàlla. Mm-hmm. ngay politique naan sama jàkka ji ko fi ñëw na nga indaale nangam. ah mais c'est c'est c'est déshonorer la religion islamique. parce que islam waxul loolu. waxal ci actualité waxal dëgg te yàlla tax. imam bi dañu am responsabilité ci réew mi. bu ñu demee bu booy naan imam niir bi nag ak imam bar nag. Ah, donte rafetlu ma wax wax jooju am na imaam yoo xamante ne aussi. Mhm. par seen position waxaluñu askan wi. Mhm. waxaluñu yàlla waxaluñu yonent bi ñu ngi xool luy dugg seen poste. Mhm. te loolu aussi islam d'accord ci. encore une fois maa ngi leen remercier bu baax a baax. waxtaan wi neexoon na mais waxtu nga tàggatoo ak ay ndox. waaw li may tàggatoo mooy euh, di leen remercier bu baax a baax mais remercier aussi euh, kër gi ma nekk di Walfadjri. parce que aussi d'accord que nous sommes indépendants ñun moom ay électron libre kenn duñu wax jaaral fii jaaral fële. loolu moom. duñ duñ ko may kenn. Mm-hmm. mais au moins ñoom permettre nañ ñu au moins ñuy génn di wax suñu xalaat. Mm-hmm. wax suñu xalaat nag du tee njuumte. Mm-hmm. mën nañu wax juum. parce que nit buy wax aussi euh, mën naa juum ci waxam. waaye liñ ci jublu mooy. éclairer la lanterne des sénégalais. wax li am te yàlla tax. mais wax dëgg. askan wi nga xamante ni ñoo ñu teg fii ñu nekk. Euh, di ñaanal aussi Pape Ndiaye. di journaliste. ñaan yoon teggi ko loxoom ba mu dellu ci njabootam. Mm-hmm. parce que bi journaliste la boo xamante ne amal na njëriñ askanam. Mm-hmm. coro hmm, damay ñaan président de la république. Mm-hmm. président Macky Sall ak justice bi ma leen di ñaan ñu libéré coro. parce que jigéen ñu ñëpp jigéen nañu jur. jigéen bu amul juróom-ñaari weer ñu dugal ko ci biir kaso bi. ñu ngi ñaan njëkk. parce daf man dafa metti ay xalaat tey jigéen bu ëmb. doom ji ak complication yi war a am ci ëmb yëpp. ak yeneen jigéen ñi ñu toll ci diggante nekk biir kaso mhm. président na jël njekk mhm. Mhm. jël leen dugal yóbbu leen feneen. waaw lool daal la ñuy tëjee di ñaan Sénégal aussi jàmb am fi. Euh, ñaanal pouvoir bi opposition bi. Euh, ñu waxtaan waxtaanu dëgg. waaw parce que réew yi aussi kenn bëggul mu tàkk. kenn bëggul mu tàkk. bu ñu sañoon Sénégal gi ñu nekk man aw ma passeport. aw ma visa fenn. daw ma fenn fii laa xam. mënuñoo daw yow mënoo daw. keneen mënul daw. kon li ñu bëgg daal mooy Sénégal am jàmm. di leen encouragé bu baax a baax aussi ci sans limite ci liggéey bi ngeen di def muy liggéey bu am solo. di gërëm bu baax a baax seen direction bi yëpp. vraiment. rafetlu aussi question yi question mm-hmm. yi am na solo trop mm-hmm. Mm-hmm. donte li ñu bëgg wax yëpp xajul ci xajul xajul ci débat waaw ah, parce que li nekk ci yi nekk ci xel yi dëgg yàlla tey boo génnoon ci benn bi def benn micro trottoir da nga xam ni sénégalais yi am di jéexatal te loolu je vous le conseille des fois ñu gis leen ngeen génn ci terrain bi wàcc wax ak sénégalais yi hmm? loo leen xew ci nangam sot nangam nangam ngeen dégg sénégalais yi loolu ça va exactement mën a mën a sonde euh, naqaru sénégalais yi mhm. ak li sénégalais yi xalaat mhm. euh, jërëjëf mhm. ñu ngi lay remercier ci disponibilité bi waxtaan bi am na solo jëlee nañ ci jàngat yu baree bari de même xam naa suñu ay internautes aussi euh, dinañu kontaan le fait ñu dalal la may jaajëfal Mouhamed mi nga xam ne moo nekkoon ci caméra bi lépp lu fi baax rek moom la ñu leen jox di daje incha allah ba beneen yoon ak beneen invité ci yeneen actualité merci beaucoup